assalamu alaikum wa rahmatullah euh, man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañu rek comme ni ko défé euh bu né amna ay wala ñu am ba ñu dégg lu dëgg du automatiquement dañuy intervenir Je ci que rek bëgg xam ndax nit bu bokku ci une société la ci yëngu du ko war a xam te it am na ca wàll woo xam ne bu wax jotee war na ko wax mu amuk jaaxle euh, ñeent ñu dee lañ euh, niñ dee daanaka aw tiis la niñ dee daanaka ak mbetteel la nu gis le gouvernement du Sénégal ak la sécurité sénégalaise ak les politiciens yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ak yenn organisation sectorielles yi dafa am lu ñu xam ne te ñun bi ñu ko nattee jaaduwul jaaduwul bi alkaati reyee George Floyd ci Minneapolis Minneapolis ak Dakar ñaata mile la ñaata kilomètre la teewul waa Sénégal gépp ñu ci ëpp bokk dooni politicien génn nañ manifeste seenu naqar génn nañ pour quoi ñu génn ndax affaire bi international la àdduna bépp nga koy suivre pour bëgg ñoom defar seen agenda politique moo leen ci dugal la tax nu wax loolu mooy ay alkaati dañoo buum ba tàyyi ci réew mi musuma gis Sénégal dugg ci ay sénégalais ci boppam la ci réew mi Amérique ñu boom leen boom musuma dégg état du Sénégal mbir mi intéressé ko ba Youssou Ndour di sukk sëriñ Mbacké Ndiaye di sukk di ñaan jéggal ma gis leen itam américain boo xam ne dafa bàyyi diineem bàyyiloo diineem ak njabootam ñoom ñëpp ñu dugg ci lislaam réew mi ak ni amerig neexee xale bu bàyyi lépp dem senegal fekk suñu ba dégg wolof bay jàng alxuraan ndax xale bi fu ma masa dajeeg moom dana ma ne papa Ousmane mën naa saar sàngam mën naa saar sàngam wala dégg naa wolof xale boobu bàyyi léppam ànd ak baayam ak maamam ñu dikk doon ay sénégalais. ñu boom leen boom ci këru kilifa diine la leen fekk ak i jaasi cor xale yi cor ko cor cor baayam daggate baayam ba baayam yàqu moom ci boppam jël ba kanam la police sénégalaise waroon na jóg def liggéeyam non seulement yee askan wi mais ubbi bopp américain yi boobu ba ndege dara amut dafa mel ne dañoo gasum pax suul ko ndax ñu seetloon yu mel nii bu amee ci kilifa ak diine kenn du ko wax Sénégal boo ko waxee am problème taalibe dal ci sa kaw naan da ngaa murtat rek da ngaa nangam mag danga lii waaye yu mel nii bu amee ci kër lu mel ne bakkan jóge fa jaadoon na alkaati jóg def seen liggéey informer peuple bi informer le procureur procureur def liggéeyam mbir mi jaaxal na ñëpp tekk ji moo jaaxal ñëpp ak gas suul gi dañuy laaj rek ndax kat la police sénégalaise. doit des informations au peuple sénégalais et aux Américains waaw gis naa itam nit taal Sénégal gisuma kenn ku souk def jéem def ni américains yi def ci George Floyd ma gis ku bàyyi diineem bàyyi léppam bàyyi ab dëkkam ak ni réew mi sa ñëw dëkk ci Sénégal taamu këru diine nag taamu tarixa defe naa ne kooku bu njëree bakkanam defe naa ne alkaati yi armée bi police bi ñëpp war a jóg ñu seet lii lu ko waral comme nag nous avons le droit du savoir man je suis membre de plusieurs organisations américaines man danaa contacté Black Lives Matter contacté contacter Urban League danaa contacté organisation yi nekk fii ak yi nekk Detroit pourquoi le silence pourquoi jusqu'à présent mënuñu ubbi bop nit ñi ndax kat black américain yi am nañ droit ñibbisi kenn war leen a boom black américain bi nekk Amérique yi dafay am wàll war fee nekk kenn waru koo boom la FBI doit continuer son travail ndax war nañu mën ubbi bopp ni man de bëgg naa ko ubbi sans bopp bëgg naa ko les américains me doivent une réponse le le Sénégal me doit une réponse dafa tegginuwul yu mel nii bu amee dañ ko warale moo tax xale yi ñaare di déraper di déraper ci kër sëriñ si yu mel nii bu amee ñu gasum pax suul ko te yéen ku ci rey mbaam ku ci rey mbaam am problème kan bokk jóg te ci dëgg ndax réew mi dëgg rek moo ko mën a mottali nu bokk nun ñëpp jariñu waaye xale bi faatu moom la police sénégalaise nous doit des informations le droit du savoir est une culture universelle droit la bu humanitaire boo xam ne nit ku nekk am nga ci droit boo xamul nga laaj xamunu dañuy laaj pourquoi ce silence pourquoi depuis lors waxunu ci dara li lan la ak lumu kon noo jegul te ñaan jamm jamm kep lañ bëgg ci réew mi yalla ko defal waye bakkan dafa for for go xamne kep ku ko jël ku ko jël askan wepp yépp ngi di deglu lu ko waral kon boobu ngi jéggul encore une fois jamm doo nga lañ bëgg ci réew mi jamm lañ fi yéné waye par lu gi dafa wara dak dafa wara dak dafa wara dak nu bokku ñu yamal ñu nous sommes des citoyens sénégalais kenn ku ne am wàll ci réew mi lii tax suñu doom ont waaye nekk mag ni ci dëkk bi décider bokkoo séddale say la mën a lu ko la police sénégalaise je vous respecte beaucoup beaucoup mais bu leen décourage ci enquête il faut mettre la main. c'est criminel ak fu mën a bokk ak ku mën a dëkk ak ku leen mën a jur ku ay criminel lañ il faut mettre la main sur eux kon jaa ngeen jëf jàngeen jëf jàngeen jëf jaa ngeen jëf